ah F24 rencontrer également le président de la République donte foofu it le président réitéré na euh, d'après ce qu'on a euh, que ne euh, voilà dina dina ànd ak euh, cette fermeté ak détermination ngir état de droit ñu mën koy mën koy respecter alors secteur privé boobu mën nañu wax ne jug na dox doxu jàmm cette démarche naka lañ ko mën a jàngatee ce secteur privé bi nga xam ne tey ñu ngi xayma en terme de perte ci wàllu économie koom-koom Sénégal ak yenn ci ay entreprises c'est des milliards bu ñuy xool violence yu ñu nemmeeku ci ci manifestation yi alors kon lu ñu def démarche boobu naka lañ ko war a mën a jàngatee. démarche bu salutaire la. parce que aussi ci réew mi lañ bokk. Euh, rawatina ñoom ñu jël seen alal aussi investir ko ci biir réew mi. tout à fait. donc ñoom. <laughs> réew mi ànd ak dal mooy seen. c'est ça mooy seen. voilà <laughs> en tout cas mu leen ci ñoom seen seen alal la ñuy sàmmaale. Ah, parce que aussi. Euh. ñoom am na ñoo xam ne du ñu investir. Mm. am na ñoo xam ne dañuy préférer dem bitim réew. bien mais ñoom malgré difficulté yi. ci réew mi ñu des jël li ñu am investir. am nañu mérite quand même. voilà di di employé yeneen Sénégalais. ñoom tamit ñu ci gis seen bopp entretenir seen famille. Mhm. donc bu dëkk bi yëngu. je pense que amul kenn sax ku leen gën a yey ci ci ci ci médiation. rapprocher position yi ba jàmm mën a dellu si. et je pense que muy euh, l' état à travers le président de la république wala kuje gi amul ku leen ci dul déglu parce que nag. boo xoolee sax jafe-jafe yi ñuy wax nii yëpp yi ci ëpp ñoom ñoo ko mën a ñoom ñoo ko mën a résoudre. parce que état bi moom mënta mënta. employé sénégalais jeunes yi nga xam ne yëpp am nañ formation ba pare l' état ne peut pas. Mm-hmm. Euh, ki mën a résorber le chômage le chômage pardon mm-hmm. c' est bien le le secteur. le secteur te état war leen accompagner. voilà mm-hmm. donc je pense que li ñu def c' est à saluer. espérons que euh, seen action bi. dina am jeexital parce que aussi loolu lu am solo la parce que xam nga Mohamed aujourd'hui personne n'a intérêt à ce que Sénégal continue ci dynamique de violence bi amul ku ci am intérêt euh, état état a comme ak chef am muy président bi ñoom lañ dénk te bu ñu la dénkee yow sa premier en tout cas objectif mooy nga fexe ba jàmm am liñ la dénk mën a mën a ñëw absolument donc ñoom am nañ intérêt dëkk bi dal mais également ku jéggi am nañu intéret dëkk bi dal bu fekkee ni ñoom ñëpp li ñu bëgg mooy remplacer Macky Sall mais remplacer Macky Sall ci benn bopp état mais tey jii bu état bi nërmeloo mais ñoom euh, seen seen investissement bi ñu def yëpp day tombé à l'eau donc am na malgré l'adversité am na foo xam ne dañ fa war a daje moom laa doon jéem a expliquer léegi mm-hmm. am na foo xam ne pouvoir opposition dañ dañ fa war a daje mooy dëkk bi dal dëkk bi am jàmm ñu mën a dem ci ay élection yoo xam ne dinañ ko waxtaanee comme niñ ko commencé ba nga xam ne règle du jeu yi dina gën a leer rassurer ñëpp ñu dem ci élection bi ñu dal ñu bàyyi nag ki nga xam ne moom mooy tànn ku ko war a jiite moom mu tànn comme ça Sénégal mën a traverser période bi ñu mën a jëriñoo sunu richesse yi nga xam ne suñu borom jox nañu ko donc il faut que nit ñi positif di xoolee foofu donc malgré incompréhension bi malgré yi fi jot a jàll yëpp. benn moment aussi il faut que ñoom ñëpp ñu taxaw positif pour se retrouver au profit exclusif du peuple sénégalais. parce que nag fii ku fi ku fi yor baat wala wala nga bëgg a yor baat c'est parce que peuple bi moo la ko jox. tout à fait donc loolu dafa am solo donc vraiment ñuy rafetluwaat. li secteur privé bi di di def. absolument teew nañ ci dialogue bi. c'est important ils sont déjà dans le dialogue. Ouais. ils prennent langue avec le F24 man ce je je mooy que que que que ceux qui sont peut-être en marge du dialogue ñu mën a waxtaan ak ñoom rassurer leen crainte yi ñu amoon ba nga xam ne dialogue bi aussi dina mën a vraiment nekk dialogue national nga xam ne ñëpp dinañ ci mën a teg ñu teg tous les problèmes yi ñu am actuellement sur la table discuter ko pour trouver un consensus et c'est possible oui c'est possible c'est possible c'est possible il faut ñu xam ne loolu c'est bien possible mën nañu waxtaan xool am na ay jafe-jafe certes mais président ci boppam nee na amul sujet tabou moo ko wax ci ouverture waaw même troisième mandat bi Benoît Sambou newoon. xam nga Benoît Sambou génnoon na waxoon na ko waaw. parce que souvent mooy teewal. Euh, majorité bi mhm. majorité bi ci. Mhm. moom newoon na question troisième mandat bi c' est pas discutable c' est pas négociable. affaire Khalifa Sall mais président boppam ouverture nee na amul sujet tabou même troisième mandat bi ngeen di wax bu leen neexee ngeen dugal ko ci biir kon kay. Mhm. yaa xayti nañ dem. tous les problèmes ñu teg ko sur la table discuter. espérant que dinañ trouver consensus. maintenant au moins bu ñu jéemee nag trouver wuñu ñu xam ne trouver wuñu mais man daal ce que je souhaite mooy je pense que secteur privé bi vraiment seen taxawaay ak euh, war nañ leen mën a may ñu déglu leen ba rôle bi ñu war a jouer ak li ñu bëgg a jouer ñu réussir ko ba Sénégal mën a. très bien secteur taxawaayu ak démarche secteur privé bi. Euh, ci utum jàmm ndax gis nañu euh, seeti nañu F24. seetlu nañu également le président de la République. waaw loolu de vraiment démarche bu républicaine la te dañ koy rafetlu Mouhamed à préciser que manit sa document bi suñu xarit bi sama mbokk njaayin bi manit baaxee na ma si ah, jox am nga am naa <laughs> yaa ngi sa loi man sama loi constitutionnelle bu 2011 bi <laughs> macha allah bu 2016 bi Abdou Ndiaye ñaari Abdou Ndiaye ah ñu ngi koy sant bu baax franchement li moom générosité intellectuelle la ñu ngi ko ciy gërëm bu baax a baax franchement alors euh, secteur privé bi moom Euh, gis naa ne d'abord dem nañ gisee F24 jóge fa dem ci président de la république. Mhm. loolu am na solo lool ndax ñoom euh, bu ñu leen jàppale woon jox leen dëgërlaay bi ci war kon tey emploi problème d'emploi yi ñu nemmeeku Sénégal. kon du fi du fi bëri. ndax ñoom soo seetee gros marché yi du ñoom lañ koy jox étranger lañ koy jox. donte ñu ngi toog ba tey état jotul ñu bàyyi xel nag parce que boobu soo fàttalikoo Covid bi mhm. billaay wane nañu seen taxawaay ni mu amee solo que bu nekkul woon secteur privé li ñu joxe entreprise étrangère yi joxe wuñ ko parce que ñooñu ci ay réew lañ jógee. suñuy am fu ñuy cotiser si seen réew yi ñu jógee. moom lay ëppee tey gis nañu ak démarche bu républicaine ni nga ko waxee bu ñu nekk di est-ce que kon au delà bu ñu génnee ci yëpp. Mhm. état warut a xool taxaw nag ni sama secteur privé bi ay la yéwén xaaral ma jóg yi ñoom nag. gis nga Mouhamed si àdduna boo nee génneel réew boo xam ne. Mhm. étranger yi ñoo ko développé rek wax ma ko. réew pour mu am développement bi war il faut que privé yi surtout nationaux yi ñu dooleel leen mhm. ñooñu plus value ñoo koy indi ci économie réew ndax li ñu am ala kulli al ci réew ma rek lañ koy jëfandikoo am nañ fa famille am nañ fay jege ñaale am fa xame waxuma la ak emploi yi nga xamante ne dañ koy créer donc ñoom loo leen mën a joxit réew mi moo ci am avancement am ci yokkute mais du ci biti mais boo jëlee entreprise étrangère yi li jëm ci milliards yu bëri yi ñu takk di ko dugal ci ay projet nga teg ko ci seen loxo ci dicte wa ci wala sax si ndigalu ñi nga xam ne ñoo ñuy lebal muy banque mondial mm-hmm. FMI mais loolu benn lobbying la groupe de lobby boo xamante ne investisseurs yi dañuy am lëkkaloo ak banque mondiale ak FMI moo tax chaque fois ñoom it buñ la lebalee di la orienter si fan nga koy dugal ak kan ngay jëflantee la koy liggéeyal. Ah donc c'est un politique boo xam ne boo ko boo ko lëjmatee da ngay xam ne ñun ñoo ciy perdre surtout ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci pays tiers monde bi. Hmm. ñun ñiy aajowoo woo lépp ci banque yooyu noonu comme banque mondiale ak FMI. li wérte woor mooy suñu privé national bi dañ ko war a dooleel. ndax bu ñu bëggee régler le problème de l'emploi des jeunes faaw ñoom ñu bàyyi leen xel jox leen la part belle ci li jëm ci marché yi ñuy joxe ci état bi ngir ñu mën a suqali askan wi euh, tontu ba nag laa bëgg ñu ñëw mooy président bi mu ne manifestation F24 yi c'est pas le moment dañu nekk ci deuil national et que aussi. Euh, privé bi euh, yow gis nga ñu tenir ko au plan national. ñoom sax décrété war nañu benn jour ndax dañuy décrété les drapeaux sont en berne. état ah, man de sur les réseaux rek laa gis initiative. non waa PASTEF ñoom def nañu déclaration ni ni ki démb def nañu deuil national ñoom ñoom def nañ ko mais état bi nga xam ne moo ko war a décrété au plan national ngir suñ drapeau yi nekk en berne mu doon loo xam ne deuil officiel ñun dégg gu ñu deuil national kon moom. il se préoccupe de ça indemnisation des victimes état normal daf ci war a am parce que ay victimes de manifestation publique lañ ñi gaañu est-ce que dem nañu jaalal leen seeni i famille parce que semaine bii ñu bëri jot nañ seeni i corps ba rob nañ leen est-ce que autorité étatique yi dem nañ pour jébbal njaalu état bi ci ñooñu noonu di famille yi ak ndàmpaay boo xam ne mën nañ ko teg ci seen i loxo ndax ay bakkan yu rot la loolu yëpp est-ce que état def na ko donc su fekkee ne waa F24 dañu def manifestation ñoom it kan moo leen mën a incriminer ci loolu ah et ñoom ci logique politique la ñu nekk dañoo nekk ci benn démarche boo xamante ne ci seeni activité lañ ko boole est-ce que mun nañ leen ci joxoñ baaraamu tuuma ne c'est pas le moment parce que tamit euh, liñ naan euh, mbir da nga ciy jiitu état bu jiitu woon ci day national décrété ko yaakaar naa ñii di waa f ñoom duñu mën a dem di organiser ay manifestation mais dégguñu day national tey ñu bëgg leen annulé loo seen i manifestation parce que dañu nekk ci dëy ana ana la part de l'État dans cette situation mooy question bi alors Serigne le secteur privé foofu la ñu déparé secteur privé national bi nekk di def ay démarches quand même euh, pour utum jàmm ginnaaw rencontre yi mu def ci opposition bi à travers F24 ak euh, ci président de la République waaw tout d'abord di euh, nuyu waa Touba Ibrahima Seck junior ak Mamour Seck ñoom ñu ngi jàkkaarloog ñun di ñu seetaan. Mm-hmm. Mm-hmm. voilà mm-hmm. ñu leen di siyaar Ibrahima Pouy aussi ñu ngi koy nuyu baax. Ibrahima donc di wax ni euh, vraiment c'est malheureux aussi parce que euh, ñoom itam wax dëgg yàlla gis nañ li leen dal ci manifestation yi nga xamante ni génn nañ ko ñu koy naqarlu parce que man yaa a des gens yu nga xamante ni mënu ma leen considérer comme des manifestants mais je les considère tout simplement comme des brigands voilà des assaillants. parce que am na benn jour ñu waroon ñëw fii war a def si plateau mu ju ñu ñëw ndax véritablement fa ñu dëkk rek pratiquement des gens yu nga xamante ni dañu armé ba coxoo di agressé des gens loolu loolu nag ne ay manifestants ñooy def loolu parce que man souvent mooy li may wax un bon manifestant du yàq rawatina nag ngay yàq ba yàqal ñoo xam si réew mi lañ dëkk wax dëgg yàlla te xamoo nit koo xamante ni xamuloo fu mu jógee ba doon li mu doon man bu may déglu journal di gis ñoo xam génn nañ di wax li ñu leen yàqal ñii toll ci cent millions ñii toll ci cinquante millions. Pikine nga nga dëkk. Pikine dara dafaa dese. <laughs> Pikine dara desetu fa. xam nga. en am na bërëb bu nga xam ne yow di di dana woote ba di laajte ndax ah. yàqu na am déet <laughs> ah. <laughs> nga euh, euh. loolu tamit aussi. Euh. vraiment dafa doy waar. Hmm. parce que man dama gis ay nit yoo xamante ni dama xam fi ñu jógee. xam fi ñu yegg si. xam ni ñu ñafe ba yegg si am ñoom prêt bancaire lañ def ba yegg si fi ñu yegg si ñu ñëw tey ñu réduire leen ba tekkeetuñ dara. ñi jënd seen oto. ñu jënd seen oto. ñi def prêt bancaire taalal leen ko. ñu la seen këyit xam nga. loolu aussi vrai véritablement. dajale seen pep ak seen pepep ñu xëy yóbbu lépp. oui oui oui vraiment y a des gens yu nga xamante ne. mais on espère que ci justement indemnisation. Ah, bu état bi prôné maa ngi ñëw ñëw gis nga. Uh-huh. am na ñoo xamante ni extérieur lañ jógee. bi ñëwee yàggul commencé di def ay investissement. oh là là. yàqal leen. Hmm. te loolu justement Serigne est-ce que du ragaloo sax. ëllëg si biir faatu wala président Lamine Gueye. des investisseurs ànd ci dëkkam. conséquences yi. oui dafa am ay njeexital. am njeexital. Mhm. libi bii bi nga xamante ni jaxasoo na. tey ña yoroon économie réew bi ñoo commencé naa ndànk di daw di génn libi. Mhm. moo tax gis nga libi léegi fi mu mujj ak libi fa mu tolloon. Oh. libi demoon ba pour nga feebar faju sax gratuitement la. pour nga jàng gratuitement tey bu ñu demee ba possibilité yooyu yëpp ndox lépp gratuit bi amul fay parce que tout simplement réew mi dem na ba ay tension jaxasoo jaxasoo na donc loolu tamit aussi ñun il faut que ñun ñëpp am lu ñu naqari man mi toog di wax ak yow am naa lu ma naqari si réew mi mais du ma yàqal kenn nag parce que xam naa ni may manifester woo xam naa ni ma ko war a waxee xam naa fi ma ko war a waxee mm-hmm. donc moo tax nag ñi nga xam dañoo nekk si secteur privé bi nañ leen sóoraal nañ leen bàyyi xel li ñu moom am na ñoo xamante ni xamu lijjanti wuñu sax mbiru Macky Sall seen yoon nekkul si ñoom des gens yu nga xam xëy wàcc dem liggéey ñëw toog yor ay emploi yu bëri di leen fay. bien ñu si bëree bëri ñoo ñu yàqal nañ leen. tout léegi conséquence yi mooy ñañu bootoon ñëpp doon leen fay weer. Hmm. Auchan yi Auchan Pikine trois mois nee nañu. duñu duñu kii. Oh bari na si yoo xamante ni ay sénégalais ñoo fa nekk ñooy liggéey. ñooy yóbbu di te Sénégal ku ne xam ne ni dëkku taaba taaba la. dëgg la de. donc ñi fi am salaire ru deux cent mille barewul noonu. Mhm. barewul noonu te deux cent mille fi jamono toll mënul dara. Mhm. war a fay luyaas. war a fay luyaas war a fay lu ne. dund ak say doom. voilà mais mais en contre contrepartie aussi. ñi nga xamante ni dañuy dañuy dañuy dañuy sooxe maanaam mbir mi li koy indi dañ koy moytu maanaam liy sooxe nit ñi di manifester wu ba ñeneen di si rax mooy wax ay brigand loolu la ñuy moytu ba bu mu di am. secteur privé bi nag dañoo jar may doole. tout parce que réew pour mu économie mën a jëm kaw. ci secteur privé bi lay commencé lay tàmbali lay tàmbalee. donc nag li nga wax léegi. tey suñu code des marchés publics war nañ ko xoolaat. parce que am na disposition yoo xamante ni boo ko si gisee da ngay xam ni du ay disposition yoo xamante ni dafay may doole suñu ay entreprise nationale mhm. disposition yoo xamante ni entreprise étrangère yi sax la gën a man la gën a may doole